mbokki internet euh, de mi di ñu ngi leen di nuyu ci bésu di bi di 2 octobre am mbégte jàkkaarloo ak yéen yàlla dafa dogal ci atu calendrier grégorien bés bu ne dafa am xëy na xew-xew gu muy dëppool ci dundu doomu aadama yi tey nag yàlla dogal na bésu 2 octobre bi xel yëpp dañuy jëm ci sunu mbokk mii nu jege muy la République de Guinée ndax le octobre ci la ñuy célébrer seen indépendance image yooyu ngeen di gis muy illustrer dëkk ba drapeau bi ak it symbole boobu di Ahmed Sékou Touré ndax euh, moom moo proclamé woon indépendance su Guinée bañoon dugg ci communauté française ci 58 ci référendum boobee nga xam ne moom mu osé jàkkaarloog déggul ni ko non ñoom dañuy préférer jël seen indépendance demal seeni bopp jafe woon na 60 ans ci atum ren njàngat gi nga ci def ce matin rek am na cronique gi ma ci bind à travers gëstu yu ma defoon fee ci yenn confrères yi nekk ci presse guinéenne bi ginnaaw 60 ans yi jàll ban njàngat lañ mën a def héritage boobee nga xamante ni tey jii nii ñi fi ne am nañ ko Ahmed Sékou li nu mën a fàttaliku ci moom bokkoon na ci waxam ju rëy joojee nga xamante ni siiw na ci àdduna ndax moom il disait souvent nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans la richesse mbirum moom sunu bopp ba tey dafa nekk débat d'actualité ci Afrique ndax réew yi ba tey moom nañ seen bopp totalement ba tey doon na loo xamante ni sujet la ñu bari ñu ngi ciy waxtaan moo mënu sunu bopp moo mënu sunu bopp moo mënu sunu bopp saa sunu yaa ngi koy dégg ndax tubaab yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu coloniser wu ndax danoo dund ak ñoom ñaar réduiroon nañ ñu à l'esclavage nu jóge ca ñu coloniser ñu indépendance jàll na waaye ba tey yaa ngi dégg France Afrique ba tey cordon ombilical gu nu ñoom dogaguñu ko kon yaa ngi gis ni ba tey. dese nanoo moom suñu bopp bu ñu waxee dëgg te yàlla tax am na lu des ba tey donc liggéey ngi suñu kanam ngir mën a moom suñu bopp néew nu man personnellement li ma ci xalaat mooy dañuy moom suñu bopp ci ñu ne du ñu sëkk kenn coopération wala kenn relation déedéet mais tamit ñuy décider suñu bopp di définir suñu bopp suñuy politique ñoom nag bu dee partenaire lañ ci wala bëgg nañ ñu gunge wala bëgg nañ cee bokk c'est à nous d'être au devant xam nga wax ni lii lañ bëgg doxalee ak yéen bu ngeen d'accordee baax na bu ngeen d'accord yi tamit wax dëgg fa suñu dëkk ñoo ko moom suñu ressource ñun ñoo ko moom donc tey nag euh, débat du ci am ndax taxaw seetlu bi moo nekkoon wax ni tey 2 octobre c'est l'indépendance c'est la fête de l'indépendance de la Guinée suñu président ànd ceeg euh, ñamu ci war a àndal dem ngir bokk ci fête googu donc Guinée moo mën na boppam atum ren ñu ciy féete 60 ans d'indépendance yi nag li ci des nag xanaa gën a ñaan yàlla rek feet bi jàll jàmm ndax réew ma actuellement ni ak président ba ak fa Condé na coow yi ci am daal waaye lu ci munte am taxaw seetlu bi nekkoon daal fàttali leen ni tey la Guinée am 60 ans d'indépendance am bu nu jàllee ci loolu dañuy laal tuuti politique ndax waxoon nañ biig Soham Wardini yàlla dogal na muy njigéen ju njëkk gu ñu fal ci miiri Ndakaaru yàlla dogal na moom it proche xalifa Sall la waaye kenn ki gën a jege xalifa Sall ñëpp xam ko muy barte Barthélemy Dias dimanche ji libre na barte libre na ban jàngat lañ ci mën a def dellu seem ci langue politique bi dellu seem ci combat googu ñu mëne contre pouvoir gi fi nekk dellu seem ngir gën a wéyale seenu doxu ñaxtu ngir situation gi xalifa Sall nekk ndax gënul leen gis nañ ni il a perdu de poids ndax fi mu ne nii actuellement prison gi mu jot a génn dina am lu mu wàññi ci moom wala tey lay gën a mën a taxaw gën a jàmbaarloo ak nguur gi fi nekk loolee xëy na mën na ci indi ay leeral ndax tey war nañu jaakaarloo ak moom press bi ndax war na am ay révélation yi mu war a def à travers conférence de presse gi mu woo presse bi kon boobaa incha allah dinañ ci gën a ñëwaat gën cee def taxaw seetlu gën a am lu ñuy leer Barth ngeen koy gis noonu bu ngeen xoolee barte avant ak barte après ak kaso ak mbirum politique ndax nguur gi dafay nekk ngir di tëj kaso képp ku taxaw ci yoonam ngir jaamaarloo ak moom wala danoo def lii yoon waaye lu ci munti am nun ci suñu wàll ci njàngat gi ni def mooy Sénégal jug dafa war a jot nu delloo si équité nu delloo si euh, transparence ñu delloo si bonne gouvernance réew mi noo ko bokk wax dëgg fa yàlla damay faral di wax ni euh, yàlla sunu borom ku kéemaane la ndax mu bind la euh, waxula kañ ngee faatu donte dina am ñu ma wax ni ma li ngay wax du dëgg <laughs> am na ñu xam kañ lañuy ñuy faatu waaye damay wax généralement euh, léeg-léeg nga falu di jiite waaye yaa ngi am ay mbëbët ngir ëllëg te ndax dinga ko fekkeem déet te léeg nga am nooy doxalee noo xamante ni mën na gàllankoor sa ëllëg mu laal ci sa njaboot laal ci say jege waa ñi la jege daal waaw waaye na ñuy bàyyi xel ni réew mi euh, ku réew mi tax a jug dëgg am na yenn comportement yoo xam ne waruñu la cee gis ñun ñëpp dañoo war a ànd bokk ndey bokk ci lii defar réew mi donc taxaw seetlu ci mbirum Barth moo nekkoon noonu fa ñu koy tëjee mu fa ñu koy tëjee mu gën ñoo ñor moom mooy mbirum enseignant yooyu ngeen di gis noonu doon na loo xam ne bu ñu ci bàyyiwul xel régler seeni problème une bonne fois élèves yi nekk ci jàmm ñoom ñu ne ci jàmm njàngum Sénégal solaat mbubbum bi ko ñëpp respecté woon ci sous-région bi ndax sous-région bi bu ñu waxee dëgg te yàlla tax bu ñu respecté Sénégal rek xam-xam lañ ko respecté qualité enseignement am lañ ko respecté waaye xoolal gone yi léeg ci situation yi nekk ci àll bi ndax ñii di politique bàyyi nañ leen xel ndax école tijji na fi mu ne nii enseignants yi ñoom. wax dëgg fa yàlla ah damay ragal fii ak ay fan nu tàmbaliwaat grève yi ñu tàmbaliwaat dox ñaxtu te war nañ ko mën a régler war nañ ko mën a régler nu baal ma tuuti waaye man bu ma sañoon milliards yooyu dugg ci mbirum TER bi milliards yooyu dugg ci yeneen projet te nu xam ne dëkk xam-xam a koy tabax te nu xam ne dëkk tabax kër baax na lool tabax infrastructure baax na lool waaye jiital tabax conscience doomu aadama xel mi ndakay dundal muy xam def ci dafay gën a am solo lool donc école tijji na enseignants yi eh, ñu ngi noonu tàmbali nañ élèves yi yéen a ngi gis situation yooyu nga xam ne ñu ngi koy dund soxla nañ wax dëgg fa yàlla ñi nga xam ne moom la mbir mi concerné nu bàyyi xel élèves yi bàyyi xel ndongo daara yi bàyyi leen xel nii wax dëgg fa yàlla école mii tijji nii bu ne soñoon lay xew ci at yi du am ndax soxloonu ko lu ñu soxla moom mooy danoo soxla dëkk boo xam ne dafay am apaisement dafay am jàmm surtout ci côté enseignement bi surtout ci côté xam-xam bi tey nag taxaw seetlu bi ci loolu lool nga la xale yi li ñuy dund nii lu bàyyi ci xel te xam ne euh, euh, jug jot na ci luy jëmale enseignement bi kanam ci luy jëmale maanaam euh, xam-xam bi kanam ndax réew wax dëgg fa yàlla xam-xam moom mooy base bi nga xamante ni nag lu koy jëmale kanam rek ci loolu la war sukkandiku kon nguur gi mu gunge enseignants yi ci lu nu bëgg nu waxtaan ba juboo dialogue am xale yi mën a ne si jàmm askan Sénégal ne ci jàmm ndax man dama bokk ci ñu gëm ni xam-xamee tabax réew chronique jantal maara tey tënk gi loolu la woon rek moo nekkoon taxaw seetlu bi ëllëg ñu ñëw ak yéen ci yeneen anam ci yeneen mbir ci yeneen euh, dossier ngir ñu gën cee indi leeral sëkk kook yéen waxtaan di leen jox dig daje kon ba ëllëg di leen ñaanal du jàmm ak jantal